médecins yu bokk ci première promotion du département médecine faire santé développement durable ci université Alioune Diop ñu duppee ko professeur Lamine Dieye nekkoon neurologue nekkoon itam euh, recteur ca boobule université daal na leen nag jébbal seen ko raaya par semaine buy wane ne njeexitalu juróom-ñaari atu euh, formation théorie ci wàllu pàcc. dañuy commencé di euh, bu baax département médecine ak UFR. tey suñ toogee di célébrer journée bi am na liggéey liggéey bu bu bu baax boo xamante ne ñoom ak seen ay collaborateurs def nañ ko. pour que étudiants yi mën a terminer leur cursus pour ñu célébrer journée bi. ñoom médecins sortants yi nag malgré contraintes yi ñoom ña ngay wane seen ko mbégte gannaaw juróom ñaari at yoo xam ne daal dinañ koy def euh, ci wàllu formation théorie. dañuy sant d'abord suñu borom léegi nag li si des mooy di concentrer aussi stage yi nga xam ne moom la ñuy def si hôpital yi waaye également di waajal suñu thèse thèse bi nga xam ne daf ñuy permettre ñu am beneen lijaasa bu ñuy wax doctorat d'état en médecine. su suñ ko ci directeur des affaires santé et développement durable li nga xam ne nag moo waral ñu daal di sos bi le département médecine ci université Diop Bombay bokk na ci li war indi li di ñàkkum infrastructure beek itam personnel de qualifié ci structure sanitaire yi nekkee fii ci région bu Diourbel mbégte ak bànneex la ñuy am ndax ndorteel li métti woon lool li waral ñu sos bi le département euh, médecine nag euh, def daal di ci ab constat boo xam ne ko ci bërëb yi nga xam ne moom moo nekk ci biir Diourbel. donc la mise en place de département de médecine vient participer à relever ce défi. cérémonie de remise de diplôme bi nag amal nañ ko ci teewaayu autorité administrative locale yi waaye dem ak mbooleem sommité yi jógee ci université publique Sénégal ak itam ñi nga xam ne ñooy wéy juru